ku bëgg fu mu tëdd ku bëgg fu mu tëdd ak bëgg ko wéttali defe naa tëj buntu bi du leen du leen du leen daara yi amuñu benn problème ak ñoom li am solo mooy éducation xale yi ñun li ñu ñor mooy xale yi am une bonne éducation am des valeur ñoo xam ne ëllëgëm si na mën tax ñu nekk ay sénégalais yu digne de ce li am nag defe naa problème mënu fa am ki bëgg a jàngal xale yi ki bëgg leen yar ak ki nekk de l'autre côté moom tam bëgg leen yar defe naa bu ñu dajee waxtaan war na caa mën a nekk ñun amuñu problème ak daara xeexuñu daara parce que bu ñu xeex daara suñu bopp la ñu xeex parce que Sénégal daara yee ko sos tey boo demee kokki daara ga fa kenn du ne xeex na ko am tey euh, Touba la même su dem Tivaouane la même fii dëkku l'islam la dëkku diina dëkku ku ne da ngay xeex l'islam xanaa du ñun ñoo koy xeex de ñu ne bu ñu xeexee l'islam xeex suñu bopp te yaakaar naa l'islam nag ak alxuraan ak ay valeur moo ànd te fii koo fi xool rek doomu daara la parce que ñëpp ko juree sa doom nekk julit li nga njëkk dem mu dugal ko daara mu jàng alxuraan kon loolu nag dañuy indi seen participation éducation réew éducation yi kon ñu dañ koy magnifier jàpp ci mu am plusieurs projets et programmes Sénégal yoo xam dañ ko tëgg pour jàppale xale yi nekk daara yi daara moderne yaa ngi fi ñu leen di financer amee partenaires yu jàpp ñu am ñu indi appui au daara di fexe ba daara yi vraiment mekk ay daara moderne yi nekk dans de bonnes conditions waaye li ñu mënu nangu nag mooy xale yi taxaw ci mbedd mi ñun amuñu affaire daara ñu sëriñ daara xale yi ne ci mbedd nañu bëgg ñu jóge fi parce que Covid bi yaakaar naa xale ñu war a protéger il faut protéger nos enfants xale bu leen protéger wul ëllëgam si biir Covid faagagal la lan la ñuy wax donc li ab solo mooy daara yi ñun en tant que ministre de la femme et la protection des enfants ñoo bokk li ñu bëgg li ñu bëgg mooy defar suñu ay njaboot jàppale leen éduquer leen def ay valeurs si ñoom ba ëllëgam si ñu mën nekk ay digg sénégalais def naa loolu nag mënuñu ko teel ak ñoom xëy nag ñi nga xam ne dañu am beneen vision ci loolu am yeneen bëgg-bëgg ñoo ñoo ca waaye ñi nekk sëriñ daara dëgg-dëgg am lu ñu bëgg xam fu ñu jëm xam la ñu bëggal xale yi ñooñu amuñ jafe-jafe ñoom parce que ñu leen dimbal dinañ jàppale te bu ñu leen dégloo dinañ xam ne loolu moo baax senegal